dégg ñu ŋàññi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne pat mm-hmm. jaral ko sax mu kàddu jëmee ci mm-hmm. kon kooku mën nañu wax ne yonent bi jaral ko dara mm-hmm. waaye lu tax jaral ko dara mbëggeelam ci moom moo des suñ sëriñ de Cheikh brahim radiallahu anhu moom jàngal na taalibe yi ne bi zahiri shar'i wa nuuril mubiine arub bi salikina bila wala riya bi dey sama taalibe ci li ko yar ak li ko xamal moy sharia bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam don oté waaye moy alquran bi nga xamné mom la inti won ci mbeugelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne athartu an hubbil mustafa duna gayrihi walaw umma kalthuumin walaw kaana maryama فوالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله لست لتعلم الله اكبر دغ دغ degg يموتون شي واخ رك wax يموتون شو أخرك أراب دفعي وخنان إن, كن إن كان حبك صادق لا أتعته إن المحب لمن يحب متعون وفاك يمبغل نعي واتي دقل إلفو نغا وانا نخ نتكي إلفو مو وانا لنا ليلا بك باي بيم تخوي دي وخل نمبغي ينتبي صلى الله عليه وسلم دفكو وانا تلب تاي وخنا نفو وقتي وساعة ظرفت لذكره سما يتأرق سما تان لب dépensé naa ko ci tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey buñ ñu xoolee mbindam li ci ëpp tagg yonent bi la kon kooku li euh, li muy woote dëgg la ci moom ay doomam yëpp yu góor mu tuddee leen sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kooku buñ ne bëgg na yonent bi dëgg la Mouhamadul Hadi Mouhamadul Nadir Mouhamadul Aqib Mouhamadul Mahi ba mu jeex tak mun xamin naa ah ba mu jeex tak am na ci xasida muy wax naan walaw balaqu alfan wazaadu fa innama usaamihim bi asmaayi xayra zaimi su ngeen motoon junne ak lu tegal dinaa leen tuddee turi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci benn qasida ci muhammadul mustafa muy wax naan muhammadun umdati muhammadun wadari ana tufayliyuhu wabni musammaahu sama njaboot yëpp moom laa leen tuddee yu góor njabootam bu jigéen yëpp mu tuddee leen alu baytu rasul sallallahu alayhi wa sallam dundam gi yëpp nag mu jihaad ko xeexal ko lislaam nga xam ne dem na fu ne dégg nga ba muy wax naan alawtul bihaara saagiratin wa innani alawtul mudna wal xura balhal jibaala arumu riddal baari li nusrati diinihi mom diina ji rek moko denga ñoroon de nga bu jaroon jël da fay jël hmm. jasi hmm. waye nag mom yalla mayon nako hmm. euh mom jarul muy jël jasi mom jasi mo doon làmmiñam barki dem rek ma ngi tontu ci ben groupe whatsapp ben mbokk mu baax a baax di wax ne mom liko yem moy nan la Cheikh Ibrahima def ba li mu dugal ci diine mu dugal len ci diine mune mom lool la daf ko yem mune ko waw mune wax ne ndigal la باسكو القران بومي واخ داف ني الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه تي بن ايه سات داف ني اذن للذين يخاتلوا بانهم ظلموا وان الله على نذره لخضر بورغا خامن لب نديغال لا مانيكو باي دي دافا امون ديغال تي يونت بي صلى الله عليه وسلم باسكو داف ني ولا عبد قد لقي عين العلم وجاءه الاذن بدون وهن jaam bii day dajee nag jëmmi xam-xam waaye kan mooy jëmmi xam-xam nag <laughs> mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte moo waxoon ne ana madinatul ilmi wa aliyu baabuha ma ne kon bàyyi bi mu nekkee bi mu dajeeg jëmmi xam-xam di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi sallam lam ca teg mooy wa jaahul iznu mu am ndigal nag kon ndigal gi am moo tax mu mën a def jihaad bu rëy boobu dugal lim dugal ci lislaam kon buñ del si war ci sa tontu bi wala boog ci sa làcce bi ana naka la ñuy taxawee di ŋàññi yonentu boobu jullit ñi toog mel ni dara xewul ñu taxaw barki Demba Ndiaye ŋàññi benn doomu sénégalais wala benn nit ci biir nit ñi mu jaral ñépp ñuy dee war nañu laajal suñ bopp kon ana ñun suñ mahabbatu ci yonent yàlla muhammad sallallahu wa sallam te waxoon na omar ibnul xataab ci xadis bu wér laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmahina Omar ne ko la anta ya rasulallah ahabbu minni illa nafsi ci gàttal yow de yaa ma gën a lépp nag bam bam ba mu des nag sama bakkan bi yonent bi ne ko laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi xatta min nafsihi alladi bayna janbayhi ba ci bakkan bi nekk ci sa ñaari wet yi sax fekk gënaluma la ko sa mbëggeel dafa sa ngëm yàlla dafay des Omar na ko yow yonent bi ya ma gënal tay sama bakkan bobu nek sama digënté ñaari mbag yonent bi ne ko al ana ya Omar ya ngi doora yaksi nak kon feeg yonent bi tollu wut ñu fofu jarlu ñu lolu rek kon ñun nañ xamne suñu ngëm dafa dess kon liñ wara laaj suñu bop moy ana iman ana suñu iman hmm ana suñu iman buñ fàttee arabi yo ñewon ci yonent bi sa sam ne ko aman na qaalatil aaraabu qul lam tuminu walakin aslam na toog rek benn gàngoor ñëw ne ko gëm nañ yàlla ne ko déedéet wax leen na leen gëmagu leen wax leen ne jébbalu nañ waaye gëmaguñ kon man damaa yaakaar ne ñun ci jébbalu lañ toll bi léegi waaye yegguñ ci iman macha allah oustaz euh, <laughs> tabarakallahu euh. Euh, tontu bi leer na lool tabarakallahu wax nga ñu mawqif bi nga xam ne moom la si ibrahim ñes mm-hmm. radiallahu anhu mm-hmm. xamoon si yénti yàlla muhammad te si ibrahim ñes cir bi mu xam si boromam mm-hmm. xam ko si xoli jaam ñi dara mayut kooku ko ku bëgg yonent yàlla Muhammad waaw ku xam si Ibrahim Niass xam ne ku bëggoon yonent yàlla Muhammad mm-hmm. waaw ku fonkoon yonent yàlla Muhammad la ba si njabootu yonent yàlla Muhammad bi daf leen fonkoon mm-hmm. te nag olof dafay wax ne nit mëntu bëgg ganaar bañ ay cuujam mandarga gi wane ne bëgg nga ganaar mooy nga bëggaale ay cuujam si mm-hmm. Ibrahim ne dafa bëggoon yonent yàlla Muhammad ba lépp lu taq si yonent yàlla Muhammad daf ko bëgg moo tax cër ba mu xam si yonent yàlla Muhammad mu xam ko. Mm-hmm. su ko defee jàngal nga ñu ne it maanaam islaam ak iman daanaka ñaari mbubu lañ yu bokkut. Mm-hmm. nit ki mën naa ñëw rek dugg si lislaam ngir ñoŋeel dereetam. Mm-hmm. fekk lislaam duggut si biir xolam. nga indi ñu xisab arab yi yooyu ñëwoon si yonent yàlla Muhammad doon wax ne gëm nañ. yàlla xamal yonent bi na ko wax leen na gëmuñ. waaye dañuy jébbalu rek pour rawale seenu bakkan. waaye gëmaguñ yàlla wala maa yadxulil imaanu fi qulubihim su ko defee yow kenn nga si ñi nga xam ne yéen a ngi taxawu jotaay bii di gàmmoo Niama Nadir su ko defee Cheikh Mohamed Nadir ku nekk xam ne ne xam ne ay injaazaat nga xam ne sànq rek ñu ngi waxtaan ak imaam Abdoulaye Dioum xafidahu llahu mu si doon indi injaazaat yu am solo yoo xam ne Cheikh Mohamed Nadir def na ko waaye ñun Cheikh Mouhamed Nazir def ñu marqué lool. Mhm. maanaam Cheikh Mouhamed Nazir maanaam martaba bi mu amoon si aalam bi. si mhm. jàng Alquran lan moo ko mayoon lool. Mhm. loolu daal bëgg nañ ngeen ñëwoon si. incha allahu taala. Eh, macha allah waaw. Eh, alhamdulilah yaa Oustaz. kon mu ngi mel ni yaa ngi ñu bëgg indi ci injaazaatu. Mawlana Cheikh Mouhamed Nazir. injaazaat nag buñ ko waxee ci arab li muy firi ci angale mooy ay success fulam naka la Sock City ay réussir am mm. li nga xam ne réussir na ko mm. ci dundam mm. alhamdulilah kenn la woon ci ahadul mujahidina ñi nga xam ne jaahadu wa nasarul islaam wa karasu xayaatahum kullan fi xidmatil islaami wa fi nashri daawa diinul muhammad kon dëgg-dëgg eh, nit la woon ko xam ne bi mu nekkee di doomu sëriñ dafa jàng te Cheikh Ibrahim mii way juram radiallahu anhu eh, ci ay taalifaatam taalifoon na bu yàgg mm. ne tabsiratul anami fii anna al ilma huwa al imam mm-hmm. maa ngi won nit ñi ñëpp ne xam-xam rek mooy njiit mm-hmm. Mm-hmm. pour nga woote il faut nga jàng pour nga wax lu nit ñi xam il faut nga jàng pour nga wax lu nit ñi mën a dégg il faut nga jàng pour nga jubal nit ñi il faut nga jàng Cheikh Mouhamad Nazir ci gàttal bi mu nekkee doomu Cheikh Ibrahim dafa jàng ànd ak ne Cheikh Ibrahim nag ni mu bëggee woon xam-xam ak ni mu ko joxee woon gëddam eh, noonu la taxee woon ay doomam ak ay taalibeem mm-hmm. yëpp dañoo jàng mm-hmm. macha allah eh, wax nañ ne bi mu demee ci daara ji ba nga xam ne sax mokkal alxuraan tuuti kon mu jafe ci moom ndax làmmiñam dafa xawoon a diis mm-hmm. dafa laxas dem murtani dem jàngi murtani googu fa la tëri alxuraan bi mu tëri alxuraan ba pare ñibbisiwaat dem ci daaray xam-xam yi comme moromam ñi comme nawleem yi comme taalibe yi jàng xam-xam ba bokk ci wafdu bi bàyyi njëkk a génnee mm. pour ñu dem jàngi maghrib mm. bi ñu demee mu jàng fa ba seen jàng dagg mm. ñu ñibbisiwaat bi ñibbisiwaatee mu bokkaat ci ñaareelu wafdu bi nga xam ne bàyyi yóbbu na woon na leen Qahira pour ñu dem jàngi bi mu demee topp na xam-xam jàng na ko waaye nag moom dafa nekkoon nit koo xam ne ku bëggoon jàng juite la waaye ku bëggoon woyu arab la loolu nag moo ci formé boppam kenn mënu lay wax ne diw mii moo formé Cheikh Mouhamed Nazir déedéet kenn mënu la koo wax maa tax mu mel daa kenn mënu koo wax waaw kenn mënu koo wax moom moo ci formé boppam ngir mbëggeel hmm. mbëggeel dafay yeggale nit ci raaya hmm. ci dayoob li mu soxla hmm. bëgg alxuraan ak bëgg jàng alxuraan ci anam gi mu koy jàngee ci noddu ci woyu arab moo ko yeggale ba nga xam ne macha allahu taala mu yegg ci martaba bi mu ci yegg Eh, bi mu jàngee foofu ci Qahira ci gàttal waajuram dem soxla ko ngir mu ñëw jiiteel ko madrasa bi nga xam ne tabax na ko bëgg koo méngale ak jamono bàyyi jëli ko ne ko dama bëgg nga ñëw ameel ma sama daaraay bàyyi alaaji Abdullahi ji nga xam ne wëlbati naa ko pour mu méngoo ak jamono ndax Cheikh Tidiane dafay wax naan bi sayri zamanika sir mhm. sa jamono ni muy doxee doxeel noona ah, te Cheikh Ibrahim ndeysaan démb maa ngi waxtaan ak benn xale mhm. eh, ma ne ko bàyyi lim rawee sëriñu jamonoom mm. yépp mm. itte la mu ne ma waaw mu ne ma bàyyi mm. sëriñ la bu yàlla mayoon vision mooy gis-gis dafa gisoon àdduna ak fi mu jëm ak ni muy tëddee mu gaaw àndeek moom ca noonu gaaw am alaaka mooy relationship ak diplomate yi am kook président yi am kook ñëpp bàyyi nag noonu la tërale woon mbiram bi mu tabaxee école boobu Cheikh Mouhamad Nazir la jiitaloon ci école boobu mu boole jàng ak jàngale di yare di def lépp. maanaam mu mel ni boobu Cheikh Mouhamed Nazir mu ngi doon def baccalauréat sam si Qahira. waaw boobu jaamiatul Azhar. jaamiatul Azhar. maanaam sëriñ bi soxlaa mu dagg njàngam. waaw ngir ñëw. continuer wutul ko fi wutu ko ci école bi. wax nañ ne boobu fi mu hmm. toll woon ci njàng sax. Hmm. dëgg dëgg dagg ko métti na hmm. lool. waaye bàyyi na ko damaa bëgg ñu dem nga ameel ma école bi. mu ne ko su ma bàyyi soo ma mayoon de ba ma mottali sama njàng. Eh, doon na ma gënal ba ma hmm. am diplôme yi may ut bàyyi na ko man doy naa la diplôme kon nga gis ne kooku lu mu am lu ne rek hmm. eh, dëgg-dëgg hmm. yelloo na ko ndax ku Cheikh Ibrahima si wax ne doy naa la diplôme bi mu ñëwee mu jox ko école bi ba pare di ko ebal ci ay concours yi alxuraan yi xew ci àdduna bi muy dem di ko fa teewali di fa jël ndam di ko indi senegal ci Malaysia ci Arabie Saoudi ci Égypte hmm. ci ci ci Maghrib fu nekk Cheikh Mamadou Nazir dem na fa ci musabaqatul quraaniyya yooyu jàng fa jël coupe bi indi ko senegal kon nga gis ne ma tey mën nañu wax ne góorgóorlum ak njàngam ak njàngale way juróom hmm. ak yarab yaru Cheikh Ibrahima Niass bi nga xam ne dafa méngoo woon ak jamono hmm. loolu moo dimbale Cheikh Mouhamadou Nazir ba yeggale ko fi mu yegg mel noo ko tamit ni mel. macha allah oustaz jazakallahu xeyran si tontu lu leer lool. waaye ba tey oustaz si Cheikh Mouhamadou Nazir nga xam ne mën nañu wax ne Cheikh Mouhamed Nazir bahrun la saila lahu mhm. e, sànq maa ngi doxantu ci mbedd bi neex ma Nazir yi mhm. waaye sa day sedd mhm. su fekkee ku xam ru'ye nga comme ni nga ko waxee léegi e, sànq rek ak imaam maa ngi koy wax loolu ma ne ko li ma gën a yéem si Cheikh Mouhamed Nazir mooy vision bi mu tegoon pour war koo taxqiq balaa dundam gi di jeex si la ma wax ne monsieur Mouhamed Nazir daf daan wax ne sama dund gi lum gàtt-gàtt mhm. bala maa suuf da war mhm. danaa fi ba ay daara danaa fi ba ay mhm. école danaa fi ba ay juma ba fi ay borom xam-xam loolu vision la te it foog naa ne vision bëri nañ ñoo xam ne tey amuñ ko te it ñu ngi xamee maanaam mahaara bi ñu ngi ko xamee mooy da nga gis ndaw loo xam ne mu ngi amee skills mu ngi xam talent waaye ndax dana utiliser that talent Mm-hmm. loolu problème la bu rëy si ñun sabab bi mm-hmm. mm-hmm. su ko defee Cheikh Mouhamed Nadir ku ñëw neema Nadir tey da nga xam ne vision boobu mu tëraloon si dundam man ngaa wax ne taqiq na ko tey su ko defee maanaam ban sirru ak maanaam ban ruux da Cheikh Mouhamed Nadir doon doxee pour réussir li nga xam ne moom la réussir tey si àdduna ma dundam gu gàtt googu yëpp waaw loolu bëgg nañ nga ñëwal ñu si maanaam ban ban ban ban ban ruuhu la doxee ba si fii tey ba taaxiix lu mu taaxiix macha allah soo laajtee ban ruuhu la doxee mën nañu wax ne ruuhul mahabba la ruuhu mbëggeel parce que Baay radiallahu anhu moo waxoon ne wal ummatu xasdi fihimu an azuqahum ila xadarati barri rahimi ilahina xeetu yonentu yàlla muhammad wii sallallahu alayhi wa sallama li ma namm ci ñoom mooy ñoom ñëpp ma xettali leen ma xettali leen ba ba yeggale leen ca seen borom xam nga nag xettali nit ki rawut nga jàngal ko kooku mooy xettali gi gën a am solo ndax yàlla bi mu bëggee dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim njëkk a wàccee ci moom mooy iqra jàngal jàngal iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama xam-xam dal di ñëw alladi allama bil qalam muy xamal yonent bi ne ko xataa xalima gi bind sax yàlla ko xam loolu la muy bind mm-hmm. kon xam-xam dafa am solo mm-hmm. dégg nga way koo xam ne sa jur taxaw na mm-hmm. lancer benn défi mooy samp benn ndënd dégg nga dund fi ba jógee fi ndënd moomu kenn daanewu ko bu fekkee doom ju baax nga hmm? eh, bu fekkee doom ju baax nga war nga fexe ba ndënd loolu bu mu daanu وإلى القرآن دون والذين آمنوا وتبعدهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتي أمم. كن أمم. شامو من نزير أمم. دفا نيكون دوم جو خامني غيسون نا فيشون ويجورم شي ابراهيم رضي الله عنه مو تك في فيشون بوبام موم مو غيس ليكو باي دينك موي لي ام سولو تي ليغيو شيخ ابراهيم mooy wàllu daara mooy mooy atarbiya wa taalim mm-hmm. mooy jàngale ak yar mm-hmm. ndax Baye daf ne aw jëd nii xaqan li jabril kasri mm-hmm. li ann nii wakiilu sirri sirri hmm? yàlla daf ma amal pour ma régler problème si régler problème si nag foog ñu jàng foog ñu dellu ca daara ja foog ñu dem ci école ba foog ñu ubbi téere yi buñ xamee rek hmm? dañuy noppalu ok bi mu gisee ne Baye loolu moo doon vision am dundam lépp ci loolu la ko dépensé ba pare laata bàyyi di fi jógee mu oo ko ne ko sama doom ñëwal nekkal sama loxo ndeyjoor liggéey baa ngi nii jàpp ci loo man bi mu ko jàppee nag mu ne liggéey bii nag bu soobee yàlla du échec ci sama loxo maanaam du fe du amee benn failures ci sama saayit man dégg nga bàyyi dénk ko jàng ak jàngale mu taxaw teg ci bakkanam daan na wax ne man du ma directeur man tracteur la hmm? du directeur mhm. bal innama ana tracteur mhm. man tracteur la dama war a maase la janj yi buddi pakk yi buddi garab yi ba yoon wi maase nit ñi mën a jàll dëgg dëgg nga bàyyi ba muy wax fee daf noonu wa ubrisu lil jiilil jadid yi mhm. misaala Cheikh Mamadou Nazir nag vision boobu la doon doxee pour bëgg a àggale liggéeyu waajuram fi mu jëm xam nga koo xam ne waxoon na ne alawatul bihaara saaxiraatin maa ngi xuus di dem ñu laaj ko foo jëm ci beneen xasida mu ne bi bel jiika yow man ثم يوما تجولا اه، اه. بقاهرة أبقي اه. هناك جمالا مملني من وما لندن أو نابليون دينغا بموها إليهم قلي عنك خبالا ديدم ديدم ديدم تلي كدون يوبو ياب موي لأبرزو وأبرزو للجيل الجديد مثالا والله بموي ديبار تي رحلام مومباي daf noonu sa altu rabbi mhm. an yaumma hadyi kullal wara wa doon saa yi ñaan naa yàlla hëd yu yonent bii ma yore mi mission yonent bii ma yore war ko yóbbu yal daj fu nekk ci àdduna bi waaye koo xam ne yow da nga fekk sa way jur ñaan loo la ba pare mu mu mu ne la nag yoon waa ngi nii noo war a def da nga war a dem Chamoun Nasir nag yoon wow la jaaroon ngir yeggale jaami yàlla yi fa Cheikh Ibrahima Niass bëggoon ñu yegg ci dayoo ci xam-xam ci dayoo ci kawe ci dayo ci lépp moo tax nga gis ne eh, jàngaleem kenn mënu la koo mi eh, eh, misaalal kenn mënu la misaalal njàngaleem Cheikh Mouhamadou Nazir injaazaat yu rëy yi mu am yëpp juhdu boo xam ne joxoon na ko xam-xam liggéey ko ci diine ji moo ko ko may Cheikh Nazir ruuxul ruuxul mahabba boobu la doon doxee moo tax mu mën a taxqiq lim taxqiq moo tax mu mën a àgg fi mu àgg tey rek ci kër imam Abdoulaye Ba ñu ngi koy wax ci waxtaan wi ne tey bu Cheikh Mouhamad Nazir génnoon mhm. ba xool néegam xool turbine bi xool jumaam ji dëgg-dëgg bu ko yàlla ne tànnal lañ waxoon yoon yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam mhm. ñu ne dafa ñëw mhm. eh, malakul mawt dafa ñëw ci moom ne ko tey la sa mawidul mawt sa bésu dee tey la mu ne ko ah lañ waxante woon nag du lii man dama waxante woon ak yow ne boo may rey nang ma tàggu léegi malakul mawti ne ko léegi loo bëgg mu ne ko ma dund fi lu yàgg malakul mawti indil ko nag ne ko raayal karaw gi say baaraam lu mu daj ci karaw gi rek nañ la bindal lu toll noonu ci ay xat mu ne ko après gannaaw loolu lu ciy topp mu ne ko dee mu ne ko maadaama lu mu yàgg-yàgg dee ay am xaaral ma tàng dee léegi rek waaye maanaam chaque mois mën na sa tey bu génnoon xool injaazaat yi ko yàlla defal ci kaw suuf réussir yi liggéeyam réussir bu ko yàlla ne tànn looyee ne ko desaat fi dund ak delluwaatal sa biir xabru looy jël dana wax ne yow yàlla maa ngi delluwaat ci sama biir xabru parce que dafa bokk ca wala tax la wala laa taxsabanna alladina xutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaquun farihina bi ma ataahumullah ah kon moom la ko yàlla defal daf koy bëggee hmm. ci biir xabru boobu mu tëdd hmm. ndax tey lam doon taxqiiq dëgg-dëgg lépp sotti na